alhamdulillahi rabbil alamin ñu di ko jàng ngay wax ñu di ko jàng ngay wax mi ngi mel ni julli di waxtaan mi ngi mel ni ngay julli di waxtaan sa julli amul njëriñ sa julli amul njëriñ nit buy jaamu yàlla day jàng nañuy jaamoo yàlla nit buy jaamu yàlla day jàng nañuy jaamoo yàlla te di ko jëfee na ko yàlla santaane te di ko jëfee na ko yàlla santaane bu ca bëggee jëriñ bu ca bëggee jëriñ gone bañ ko yóbbu ci jàkk gone bañ ko yóbbu ci jàkk tamal ko bëgg mu tàmb diine tax bëgg mu tàmm diine moo waaye doo ko bàyyi muy soow ak wax. waaye ko bàyyi muy soow rek ak wax. te gone gone am na nit. nee na gone bu ne ànd naa kam àndal bu ko nee toogal fii. kam àndal bu ko nee toogal fii. téye salaam mi. mu def ko. mu def ko. waaye li ngeen def du yar du teggin. waaye lii ngeen di def te yàq sa diine rek la. te yàq sa diine rek la. diine boo ko deful na ko yàlla bëggee. diine boo ko deful yàlla bëggee. kem sa kattan. kem sa kattan. def nga amul njëriñ. def nga du am ngeen baal ma àq nag. nee na ngeen baal ko àq nag. waaye dëgg bu jotee faaw ñu wax ko. waaye nee na dëgg bu jotee faaw ñu wax ko. waaw Cheikh Awa Balla suñu sëriñ ba noonu la. nee na Cheikh Awa Balla suñu sëriñ ba doon na wax ni. dëgg neexul ci ki koy wax. dëgg neexul ci ki koy wax. neexul ca kam koy wax. neexul ci ca kam koy wax. waaw bu jotee faaw ñu wax ko nag. waaye bu jotee nag faaw na wax. kon nag daa bëgg ñun ñëpp ñu maa si tuub. nee na sëriñ bi nee na dafa bëgg ñun ñëpp ñu maa si tuub. te delloo suñu xel ci yàlla. te delloo suñu xel ci yàlla. ak suñuy wax ak suñuy wax. ak suñuy wax. ak suñuy jëf. ak suñuy jëf. te tuubal ko. te tuubal ko. te topp ko. te topp ko. te ragal ko. ta ragal ko. te wattu ko. te wattu ko. mooy li ñuy jëriñ. gannaaw loolu nag. nee na gannaaw loolu nag. maa ngi siyaare. mi ngi siyaare. mboolem bokk ji ji. mboolem bokk ji ji. di ci jiital nag. di ci jiital nag. sunu wasila. sunu wasila. sunu yaakaar. sunu yaakaar. di Cheikh Mouhamadou Mountakha. di Cheikh Mouhamadou Mountakha. di yeesal sunu jaayante ci moom. di yeesal nag sunu jaayante ci moom. ngir yàlla ak yonente ba. ngir yàlla ak yonente ba. ak jëmmi sëñ Tuubaa. ak jëmmi sëñ Tuubaa. di ko yeesal. di ko yeesal. ci sunu wayjur. ci sunu wayjur. di sëñ Basiru. di sëñ Basiru. Anta Ñaŋ. Anta Ñang ñu fi toog jotaay borom daaru Muxti ñu fi toog jotaay borom daaru Muxti di leen siyaare di siyaare di siyaare kilifa diine yëpp di siyaare kilifa diine yëpp di ndokkal jullit yëpp ak mbokk jullit yëpp di ndokkeel jullit yëpp di ndokkeel jullit yëpp di siyaare mboolem borom xam-xam yi di siyaare mboolem borom xam-xam yi ñi nga xam ne taxaw nañ ci weer bi ñi nga xam ne taxaw nañ ci weer bi dañ ci wax ci lu baax di ci wax ci lu baax di ci tafsir di ci tafsir di ci def ay conférence di ci def ay conférence di def ay ndaje di ci def ay ndaje di waaraate di waaraate lépp yàlla sax te lépp yàlla tax. yàlla na ko yàlla nangu. yàlla na ko yàlla nangu. te gërëm ko. te gërëm ko. te boole ñu ci fay. te boole ñu ci fay. te la tax ñuy waaraate. te la tax ñuy waaraate. jëlee ko ci alxuraan. jëlee ko ci alxuraan. ak sunna si yonent bi. ak sunna si yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. la cay am njëriñ. la cay am njëriñ. ci sama maas gi amul xam-xam. ci sama maas gi amul xam-xam. ci sama maas gi amul xam-xam. mooy dégg ga. mooy dégg ko. ak fas ko yéene jëfe. ak fas ko yéene jëfe. ak dégg ci nopp rek. waaye dégg ci nopp rek. amul benn njariñ. amul benn njariñ. yal na yàlla boole si ña nga xam ne. kon yal na yàlla boole si ña nga xam ne. bu ñu déggee lu baax. bu ñu déggee lu baax. daañu ko gëm. daañu ko gëm. daañu ko gëm. daañu ko jëfe. daañu ko jëfe. te yàlla tax. te yàlla tax. te nangul ko. te nangul. allahumma amin. allahuma amin ginnaaw loolu nag ginnaaw loolu nag maa ngi siyaare bokk taalibe yëpp maa ngi siyaare bokk taalibe yëpp siyaare bokk jullit yëpp di siyaare bokk jullit yëpp di ba di siyaare bokk dëkkandoo yëpp di siyaare bokk dëkkandoo yi di leen balu xaq di leen balu xaq te di leen baal xaq te di leen baal xaq te di leen seerale te di leen seerale bëgg naa yéen ñëpp ngeen seerale mu bëgg yéen ñëpp ngeen seerale man maam Thierno mii man maam Thierno mii lépp lu yàq lu dox sama diggante lépp lu yàq lu dox sama diggante nit si àq ci àqam ju ma yëg ak ju ma yëgul ju ma yëg ak ju ma yëgul jéggal naa ko li wa silaahil karim jéggal naa ko ko li wa silaahil karim yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla jéggal te boole nu jéggal te boole nu jéggal topp ma kenn dara topp ma kenn dara du fii du fan jëm du fii du fan jëm yëpp yu mu àq yu mu nit amee li nee na àq yu ko nit amee li tax xaw ma ko taxaw ma ko te mu diis te mu diis ba bu ëllëgee ba bu ëllëgee buñ ko feeñalee ci bis penc buñ ko feeñalee ci bis penc bale du yomb foofu bale du yomb foofu bale ba bare bi yomb faw jéggal naa ko ko fii jéggal naa ko ko fii yàlla ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla jéggal te bu ëllëgee yàlla bu mu feeñ te bu ëllëgee yàlla bu mu feeñ jéggal naa jullit yëpp nee na jéggal naa jullit yëpp ak bindeef yëpp ak bindeef yëpp te jéggalu ñëpp itam te jéggalu ñëpp itam di jéggalu waale jullit yëpp itam di jéggalu waale yëpp jullit yëpp tey ñaan yàlla boole ñu jéggal tey ñaan yàlla boole ñu jéggal di soññ sama bopp nag di soññ sama bopp nag di leen soññ di leen soññ te xam ne te xam ni. sant war na sant yàlla. war na ñu sant ak ay ndigalam. bi ñu ay ndigalam. ci weer bi. ci weer bi. ñu jëf ci kem suñu kàttan. ñu jëf ci kem suñu kàttan. jëme ko ci moom. jëme ko ci moom. la ca jubal la ca jubal lépp. la ak la ca jubal lépp. yal na ko baaxal te nangu ko. yal na ko baaxal te nangu. te nangul jullit yëpp. te nangul jullit yëpp. te jégal jullit yëpp. te jégal jullit yëpp. te texal jullit yëpp. te texal jullit yëpp. te yërëm. te yërëm. te xettali. te xettali. ci àdduna ak àllaaxira. àdduna ci baax ci baaxu boppam ci baaxu boppam bi. daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. daraja Seexul Xadiim mi nu yaakaar. ci daraja Seexul Xadiim mi nu yaakaar. dañu fas yéene góorgóorlu nag. dañu fas yéene góorgóorlu nag. nga xam ne bii liggéey jàll na tey. nga xam ne bii liggéey de jàll na tey. yal nañu ko fekkewaat déwén yu bari. yal nañu ko fekkewaat déwén yu bari. waaye nag. waaye nag. lam ñuy jural ma am njëriñ. lam ñuy jural ma am njëriñ. mooy li suñu borom wax rek. mooy li suñu borom wax rek. ba mu waxee aay ja. ba mu waxee aay. laxalakum tattaqoon. laxalakum tattaqoon a jëm ji. loolu rek ci am solo. nee na loolu rek moo ci am solo. bu ñu jurelee ak ragal yàlla. nee na bu ñu jurelee ak ragal yàlla. bu des ci noonu. bu des ci ñun. ñu di ko jaamu yàlla. ñu di ko jaamu yàlla. kon danañ rafet njort ci koor gi nangu la. nee na danañ rafet njort ci koor gi nangu la. waaw bu ñu juralee ak leneen nag. waaye bu ñu juralee leneen nag. kon koor gi amul solo. nee na kon koor gi amul solo. kon nag yàlla na yàlla jubal. kon yàlla na yàlla jubal. tam tam bàyyi nu ak ragal yàlla gu dëgg. nee na tam bàyyee nu ak ragal yàlla gu dëgg. bu jëm ci suñu borom. bu jëm ci suñu borom. ci wax ak ci jëf. ci wax ak ci jëf. ak ci yéene. ak ci yéene. te ñun ñëpp. nee na te ñun ñëpp. ñu tuub ñu tuub te balonte àq te balonte àq te muy dëgg ci ñun te muy dëgg ci ñun tey laabirante tey laabirante tey dimbalante tey dimbalante te woyofal adduna ci suñu xol te woyofal adduna ci suñu xol xam ne adduna du dara ndax adduna du dara te du ko doon mukk de te du jàpp jàppoo dara nag rawatina nag. ñun ñii ngeen tuddee ay sëriñ. ñun ñii ñu tuddee ay sëriñ. ñun du ñu ay sëriñ ay taalibe la. nee na du ay sëriñ ay taalibe la. man de ab taalibe laa ni yéen. nee na man de ab taalibe laa ni yéen. ci taalibe Sëriñ Tuubaa rek laa bëgg a bokk. te ci taalibe Sëriñ Tuubaa rek laa bëgg a bokk. ci taalibe Cheikh Awa Balla laa bëgg a bokk. ci taalibe Sëriñ Cheikh Awa Balla yi tam laa bëgg a bokk. waaye taalibe yi nag ca la yàlla digle nag ca laa bëgg a bokk. waaye nee na taalibe yi nekk ca la yàlla digle ca la bëgg a bokk. ca laa bëgg ñëpp bokk ci. nee na ca la bëgg ñëpp bokk. bëgg ngeen jublu xettali suñu xettali suñu bopp nee na ñu bëgg ñu jublu ci xettali sunu bopp. nee na xettalee sunu bopp nag. li ñuy xettalee sunu bopp nag. ba yàlla xettaloon. ba yàlla xettaleen. mooy sax ci ndigal sunu borom yi. nee na mooy sax ci ndigal sunu borom yi. kem sunu kattan. kem sunu kattan. tey daw terrain yi. tey daw terrain yi. kem sunu kattan. kem sunu kattan. ci lu nëbbu. ci lu nëbbu. ak lu feeñ. ak lu feeñ. te woyofal àdduna. te woyofal àdduna. nga xam ne que àdduna ji ñuy kër këree. ndax àdduna ji ñuy kër këree. du dara. du dara. te du doon dara mukk. te du doon dara mukk. lii ñun nag ñun topp na ngir yàlla nee na ñun na ak yonente bi jëm suñ Tuubaa ak yonente bi ak noo ci war a raw noo ci war a raw ndax lii nu day ndax lii def ab doona day du sunub doona du sunub doona taalibe yeeg taalibe yeeg addiye yeeg addiye yeeg wata yeeg wata bi ceeb bi loolu du sunub doona da lan may loolee de moo mat a seet. nee na lan may loolee de moo mat a seet. waaw loolu sunu dono de. nee na waaye loolu yi day sunu dono de. ndax loo ko baax la baax la. ndax loo ko baax la baax la. loo ko bari la bari la. loo ko bari la bari la. saay saay bu bon ëppale la ko. saay saay bu bon ëppale la ko. kon loolu sunu dono de. nee na kon loolu yi day sunu dono. nañ fas yéene dellu ci sunu dono. nañ fas yéene dellu ci sunu dono. ànd ak nit ñi ci dëgg. ànd ak nit ñi ci dëgg. wamat leen ci dëgg. wamat leen ci dëgg. ànd ak ñoom ci dëgg. ànd ak ñoom ci dëgg. te di ko jëfe. te di ko jëfe. te di ko waxe. te di ko waxe. waaye tabax yi. waaye tabax lu bari bari. lu bari bari. moog tàggi picc yi ngeen gisoon ci nawe képp. moog tàggi picc yi ñoo yem képp. ñoo yem képp. ba nawetee ba ñax mi sax. ba nawetee sax. picc yëpp da dagg di ràbb. picc yëpp dañuy dagg di ràbb. garab boo dem na si mbir ak tàgg. garab boo dem na si mbir ak waaye bu ñu toftalee ba naaw tool. waaye bu ñu toftalee ba naaw tool. fii ñoo ngi ci mois de mai. fii nii ñoo ngi ci mois de mai. ñoo ngi ci mois de avril. ñoo ngi ci mois de avril. mën mën na romb genn garab. mën naa romb genn garab. ba gis semaine tàgg. ba gis semaine tàgg te doo xam lu ko fa jëlee. te doo xam lu ko fa jëlee lépp naaw la. lépp naaw suñu tabax yi foofu képp lay mujj. nee na suñu tabax yi foofu képp lay mujj. ku la gën a suuf tabax rek. ku la gën a suuf tabax. gën laa dàq tabax. gën laa dàq tabax. ñun ñëpp ab janj buy tabax ab janj rek la. ñun ñëpp janj buy tabax ab janj dong la. da ngay tibbi suuf. dañuy tibbi suuf jaxase jaxase taxaw taxawal. taxawal dugg ci biir. dugg ci biir bala nga am bala nga am mu yàqu. mu yàqu wala nga dee. wala nga dee daanu sa kaw. daanu sa kaw nga oh, ñu ñu a góorgóorlu. nee na loolu jot a góorgóorlu. ñam yi itam. ñam yi itam. du dara. su suñu ñam day yàq génn. suñu ñam day yàq génn. seen ñam a génn. seen a génn. waaye bu nga nee doo tal dara. bu nga kon li nga lekkoon la jëriñ. kon li nga la jëriñ. li nga naanoon la jëriñ. li nga naanoon la jëriñ. li nga ci jaamu yàlla képp ci am jëriñ. li nga ci du dara. du dara loolu di dëbb ay weñ rek la tappale ko tappale ko dagg fee dagg fee dagg fee ko suude ko eh, eh, defar ba nga dugg lépp nga dugg di dawal di dawal defe naa yaa di rot si wii see wekk ba nga ne oto baaxutul nga am na yow nga defe ne yaa ngi baax nga dem wuti beneen ba yëpp tas oto yi nga xamante dëkk bi tey ce ce ba léegi ku ci wan ku ma ci mën a wax benn fu ne amul te xamoo fu mu ba xam suñu. ndem loolu nii la nag. nee na ni loolu nii la. ni jëmmi ni jëmmi oto toll. te yi ñu xamoon fii yëpp. yi ñu xamoon fii yëpp. mën naa dem ci benn tey ba gis ko. loolu du ngóor a. loolu du ngóor a. def loolu am koom. bu ñu def loolu am ci diine ji. nan jublu ci ko. te fonk def yàlla tax. booy tabax. booy tabax na sax ko ngir jaamoo ko yàlla na nga koy tabax ngir jaamoo ko yàlla fas yéene dëkk jaamu yàlla fas yéene dëkk di jaamu yàlla fas yéene la nga cee def yàlla tax fas yéene la nga cee def yàlla rek tax te daw ci ak mag te daw ci ak ak mooy yàlla ak mooy yàlla nga di ko ca daw nga di ko ca daw loolu tax mu am njëriñ nee na loolu mooy tax mu am njëriñ waaye li ñu def bànneex waaye li ñu def bànneex ba tax xatalatuñ dara ba tax xatalatuñ dara nañ seetaat suñu bopp nee na nañ seetaat suñu bopp nan seetaat suñu bopp. nan seetaat suñu bopp. nan seetaat suñu bopp. nan seetaat suñu bopp. rawatina ci ñun ñii yaakaar. rawatina ñun ñii yaakaar. ndax yéen ñii ñu wër. ndax yéen ñii ñu wër. la Cheikh Abdoul Ahad mu sell moo xam rek. la Cheikh Abdoul Ahad mu sell moo xam rek. ak set rek a tax. ak set rek a tax. waaye koo ci ne saa baaraam. waaye koo ci ne saa baaraam. ne ko maam Thierno mi loolu ci moom ba di ko topp. ne ko maam Thierno mi loolu ci moom ba di ko topp. du la mën na lenn lu Sëñ Tuubaa. du la mën na lenn lu Sëñ Tuubaa. man mii ñuy topp. nee na man mii di toog ngeen liggéey di ma jox. ngeen liggéey di ma jox di jur di ma jox. di jur di ma jox. ku ku ma ne ñii lay defal lu tax. ku ma ne ñii lay defal lu tax. ak lu ñu si yow ba tax. ak lu ñu si yow ba tax. donc du ma ko mën leen lu Sëñ Tuubaa. du ko mën leen lu Sëñ Tuubaa. kon nag kookee moo ma taxoon. kon kookee moo ma taxoon. moo ma ta roy. moo ma ta roy. moo ma ta toppandoo. moo ma ta toppandoo. moo ma ta yaakaar. moo ma ta yaakaar. ci kaw topp ca la mu doon jëf. ci kaw topp ca la mu doon jëf. di ci jéem kéem sa kàttan. di ci jéem kéem sa kàttan. lam doon tere nga di ko daw. lam lay tere nga di ko daw. waaye fa sa ñaqu jàmbur. waaye fa ñaqu jàmbur. mu wu ko lew domm. wu ko lew domm. mu jox la ko. mu jox la ko ngir yàlla ngir tëba. ngir yàlla ngir yaakaar ci yow dara. ngir yaakaar ci yow dara. boo ëllëgee. boo ëllëgee. nga fooye ko. nga fooye ko wala nga maye ko yàlla. wala nga maye ko yàlla. wala nga def ko ci ñeexul yàlla. wala nga def ko ci ñeexul yàlla. ah mat naa xalaat loolu. Ah, mat naa xalaat loolu de. jotaay yu neex neex dana tas. nee na jotaay yu neex neex day na xumb lu xumb dana tas. te bis dikk ñun ñëpp ñu toog fi benn kenn du toog kenn du tëdd. ne kenn mu taxaw. juróom fukki junni at. te kenn du ñemee saxat. kenn du ñemee wax. te at yii junniy at ci àdduna mooy benn bis yow ma xiyam te da nga ko taxaw juróom fukki junni at te kenn du wuute te kenn ñemee sax te tàmbalee gu ñu àtte sax yonent yàlla yónni woon yonent yàlla yónni woon ñu seen risaala ñu matal ma yàlla te ma yàlla ndax mënuñu ko ndax mënuñu xamuñu ko xamuñu yokkuñu la leen yàlla waxoon yokkuñu la leen yàlla ba yàlla gërëm lii matale bu keroogee ñoo ñu gën a tiit bu keroogee jëm kon jëm ah bis boobu nañ ko xalaat. nee na bis boobu it naa xalaat. lii neex na lu lu lu neex. nee na lii de lu na lu neex la. waaye ku xalaat bis boobu du neex fi yow de. waaye ku xalaat bis boobu de du neex fi yow. kon nag waat naa ci yàlla sama borom. nee na waat naa ci yàlla sama borom. bu ma wóorul woon ne. ni ma wóorul woon. bu ma wóorul woon ne. bu ma wóorul woon. lii may sant bu ko yàlla may. lii may wax bu si tuuba may bu ko yàlla may. kon ku sukk fi sama kan ne dama lay jébal sama bopp bala nga bala sa baat daal ma doog a ci la fa ndax man wóor na ma mënul ma kenn dara kon li ki taal topp loolu ko topp kon ki tax ñu ñu topp na ko topp te topp li mu nu bàyyee te topp li mu bàyyee te fonk ko te fonk ko xam ne adduna dara te xam ne adduna du dara te sëñ Tuubaa day nee na sëñ Tuubaa day moo waral lépp moo waral lépp waaye li ñuy kër kër yi lépp. waaye li ñuy kër kër yi lépp. mos kenn mos a gis ma am ci soxla. kenn mos a gis ma am ci soxla. mos a jënd wata. mos a jënd wata. mos a tabax. mos a tabax. mos a def lenn. mos a def lenn. te àdduna jëpp. te àdduna jëpp. di ko xapp guddi ak bëccëg. di ko xapp guddi ak bëccëg. lépp mu di ko delloo ci yàlla. lépp mu di ko delloo ci yàlla. sëñ bi dafa sunu maam yi. Cheikh dafa sunu maam bi. moom mi jëwriñam. moom mi jëwriñam. lim dund lépp. lim dund lépp. mos a tege ñaar bi. mos a tege ñaar bi. ngir bëgg saa dëkk. ngir bëgg saa dëkk. mësu jënd oto mësu jënd oto mësu tekkeen dara it mësu tekkeen dara it lu ko waay defal sa teew bakkan nga koy def lu ko waay defal sa teew bakkan nga ko def waaye li murid mën a wax lépp waaye li murid mën a wax lépp doo dégg ku ne ba ba borom daru sase sama baay doo dégg ku ne la ba borom daru sase sama baay wala ba nga ko laajee dara wala ba nga ko laajee dara wala ba nga ko tegee dara wala ba nga ko tegee dara loolee mooy yoon nee na loolee mooy yoon kon nag kon nag war nañoo seetaat suñu bopp war nañoo seetaat suñu bopp ñun ñi ngeen di topp man sama bopp laay wax de nee na man nag sama bopp rëy laay wax waxaalewuma keneen waxaalewuma keneen waaye tiit bii suñu kanam waaye tiit mii ci suñu kanam kum ku matulum tiit ku matulum tiit amoo xel amoo am xel nañ ko teg suñu kanam te di ko fàttaliku nee na nañ ko teg ci suñu kanam te di ko fàttaliku te bàyyi diine ji ñuy fooye te bàyyi diine ji ñuy fooye ak wujjante ak wujjante yi ci des yëpp nee na yi ci des yëpp amul benn njëriñ amul benn njëriñ te ñun julliti te ñun jullit yi war na jeexaat suñu bopp war na noo jeexaat bopp te seetaat suñu bopp te seetaat réew mi lislaam jën diine ji rek nekku fi jën diine di nekku waaye diine ci réew mi bari bari waaye diine ci réew mi li muy bari bari ju juddul lislaam ju juddul lislaam ña ko bokk gotti sa morom kenn du ca gotti sa morom duñu wute ci dara duñu bi ak xasante bi ak léebante ci lislaam bi leen loolu gàcce la ci noonu waaye ci ca catholique yi ca catholique yi amul ca ci des yëpp. nee na amul ci diine yi ci si ka bokkal diine. nee na kenn ku nekk ka nga bokkal diine. doo xam doo wax sikkam. doo wax sikkam. ko gis. doo ko doo ko feeñal. doo ko feeñal. ñun a waxante lu bon. ak a ay diine. ak a xeebante ki la xeebal sa biir. bul ko faale. bul ko faale. jaamu woo ko. jaamu jaamu. yàlla ngay ne. te bis dana dikk boo xam ne. ka ka ngeen bokkoon di jaamu. ka ngeen bokkoon di jaamu. fay. ku keree gi dañuy xam ka man ak ka mënul. bu keree gi dañuy xam ka man ak ka mënul. foofa la mënante war nu jullit war na seetaat suñu nu bopp ndax gàcceel ci ñun de. ndax gàcceel ci ñun de. jullit bu ne xeeb sa morom. jullit bu ne nga xeeb sa morom. di weddi sa morom. di weddi sa morom. di weddi ak ak diineem. di weddi diineem. di ko ko xeebal. di ko xeebal. di ko xas. di ko xas. te ni jullit laa. te ni ab jullit laa. kenn jàngewu ko ci islam. nee na kenn jàngewu ko ci islam. te gisuñu ko fenn ci yeneen diine yi. ko fenn nit ci yeneen war naa war naa doon ab ab ab ab yedd ci ñun. nee na loolu war naa doon ab yedd ci ñun. war nañoo yeddaat suñu bopp. war moroomu jullitam. ab jullit day jàpp ne moo ko gën. te jàpp ne moo gën. jàpp ne moo ko gën a dëggu. jàpp ne moo gën a dëggu. jàpp moo ko gën aw ci yoon. jàpp ne moo ko gën a aw ci aw yoon. rafet njort ci moom. rafet njort ci moom. di seere ci moom lu baax. di seere ci moom lu baax. ci fu mu nekk fu mu nekkul. te fu mu nekk ak fu mu nekkul. di seere dëgg ci moom. di seere ak dëgg ci moom. lam ca xam lu lam ca xamul ak lu ñu ko ci bëgg woon leneen. nee na leneen lu ñu ca xamul wala ñu bëgg ko caa woon leneen. mu gëmm sa noppi ci. mu gëmm sa noppi ci. te jàpp jullit yëpp ne boppam. te jàpp jullit yëpp ne boppam. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na. seen liimaan du mat mukk. seen liimaan du mat mukk. nareedu ndare bi kenn ku ne la nga yéene sa bopp kenn ku ci nekk da nga koy yéene sa morom da dëgg ci yow muy dëgg wax yonent bi du dañ da wax yonent bi du dañ wax suñu borom dañ wax suñu borom mi alxuraan du dañ kon nag mat naa sédd bu baax kon loolu mat naa sédd bu baax te wóote gi bakkan waaye koo xam ne kii. waaye koo xam ne kii. nee nga. nee nga. du ma du ma du ma dëppoo ak ñi ma dëkkal. du ma dëppoo ak ñi ma dëkkal. mak waa Maka laay dëppoo. waa Maka laay dëppoo. du ngeen bokk waxtu ñu julli moom waxtu ñu julli. du ngeen bokk mu ko waxtu ñu ngeen julli. te waxtu ñu julli foofee boo ko jullee fii lu am julli. te waxtu yi ñuy julli foofu boo ko jullee fii loo am julli. ku ne waa Maka laay dëppoo. ku ne waa Maka laay dëppoo. ci lépp. ci lépp. heure ba ñuy xëy di liggéey. heure ba ñuy xëy di liggéey. ak ba ñuy wàcc. ak ba ñuy wàcc. boo ko defee fii. boo ko defee fii. ndem fonctionnaire ba nga. dem fonctionnaire la dem employé nga dem employé yaakaar naa bu weer dee kenn du la fay yaakaar naa la fay laxal kaan lakum bi rasulullah uswatun hasan yàlla yonent bi leen royloo nee na réew nu duñ réew waa Màkka am réew ni meex a te waxtu juróom dañoo bokk ay julli ci waxtu mën noo bokk waxtu ñu tudd. mën noo bokk waxtu ñu tëdd. mën noo bokk waxtu ñu yeewu. mën noo bokk waxtu ñu yeewu. mën noo bokk waxtu ñu liggéey. mën noo bokk waxtu ñu liggéey. loolu nañ ko seetaat. loolu nañ ko seetaat. fonctionnaire bu ko wedd. fonctionnaire bu ko wedd. dama tëdd bu bu ne waa Màkka laay liggéeyandool. dama rek ne waa Màkka laay liggéeyandool. ay di ñu lay xëy laay xëy. ay di ñu xëy laay xëy. ay di ñu wàcc laay wàcc. ay di ñu wàcc laay wàcc. ba ba fay jot nga dem sa compte. ba fay jot nga dem sa compte. ba xam da nga fa fekk benn wiir maam de. ba xam da nga fa fekk benn wiir maam de. ndam nit nga ko mënul asa yàlla. ndegam nit nga ko mënul na asa yàlla. yàlla mi teqale der yi. yàlla mi teqale der yi. teqale lam yi. teqale lam yi. tax teqale réew yi. teqale réew yi. fu na mu jox leen seen meexa. fu na mu jox leen seen meexa. jox leen waxtu ñu war a julli. jox leen waxtu ñu war a julli. lépp. lépp nga ne ko fi kupp. nga ne ko fi kupp. ndax bëgg daal di jënd maam Thierno rek. ndax bëgg daal di jënd maam Thierno rek. loolu jëru ko. nee na loolu jëru ko. daara jëf bis penc lay feeñ. daara jëf bis penc lay feeñ. duñ dara. duñ dara. ah noonu warul bokk nee na nun murid doom nun de sëñ Tuubaa rek def muy dara nun de sëñ Tuubaa rek lan def muy dara ndax moom daan gis ndax moom daan gis mu mu dëddu adduna mu dëddu adduna dëddu bànneex dëddu bànneex xeex sa xeex saytaane xeex ak saytaane xeex ak bakkanam xeex ak bakkanam ba am li mu bëgg ci borom ba am li mu bëgg ci borom

nee na sa amat. bu booy tàbbi sa bàmmeel rek. nee na jur gi jeex na. jur gi jeex sa jëf rek. sa na loolu nañ ko sàmm. te borom penc wax na lu mu lu a wax. te borom lu mu war na. nu gis. wax na nu dégg. wax ngi te loolu la doon ci bàyyam. te loolu la doon ci bàyyam. loolu bàyyam doon na Sëñ Tuubaa. loolu la bàyyam doon na Sëñ Tuubaa. loolu la mooy sunu doon. loolu la mooy sunu doon. waaye li ñu def doon li ñu def doon du doon. waaye li ñu def am doon nañu am doon. kon nag nañ góorgóorluwaat bu baax. nañ góorgóorluwaat bu baax. nañ góorgóorluwaat bu baax. nañ góorgóorluwaat bu baax. te mooy ci diine lislaam ji ci sëriñ Tuubaa te yar gone yarub jullit te jàngal leen diine lislaam jàngal leen xam-xam waaye ñëpp nga dëddu alxuraan dëddu xam-xamu sariyaan dëgg man njàngu tubaab rek du am du am njëriñ tey du ko amal te maa leen ko wax te yàgg bu ngeen geesoo di seen war na leen mën firli di seen li ci seen kanam. li ci nag. bu ngeen diine ji. bu ngeen woyofalee diine ji. ba diine ji far. ba diine ji far. da ngeen rëcc ba mu far. da ngeen rëcc. ko laaj ak seen njaboot gi. te da ngeen ko laaj ak seen ko jàngal diine. ñu boo bëgg mu di jullit. boo bëgg mu amal la njariñ. yar ko yarub nit ki yiw def ci moom jikkoy nit ki yiw bu màggee amal la njariñ mu taxaw nga siggi waaye jur doom di yafal rek ni mu xar ba mu toll ni nga ne ko dem wut si àdduna am doom ju baax de am doom nag yomb na muus ak jana sax am doom ju baax de caaxaan du ko maye la ko yar bu ci diini ci wax

yar leen gone yi te yar leen yarub nit ki yar leen yarub lislaam moo tax diine jee jàll moo tax mu sax

boo ko mënta awal boo ko mënta jubal lu si leen xel. delloo si leen seen xel. te yar goone yar bu lislaam. te yar goone yar bu lislaam. lislaam bi bu ndax xam-xam a koy téye ak jëfe bu xam amul jëfe du mën a am wala jëf du mën a baax kon faaw ñu jàngal leen diine lu ñu leen jàngalul diine lu jàngal amul njëriñ te it nee na tey tubaab yi ngeen topp tubaab yi ngeen topp dana dana ñàkk jëm rek dana ñàkk jëm rek waaye liñ ñu lebal day waaye liñ ñu lebal day buñ leen ko lebaloon buñ leen ko lebal nit ku ñuul dootu nit ku ñuul dootu taxaw Europe nit ku ñuul dootu taxaw Europe liñ def fii ci Liban ci Afrique nee na liñ def fii ci Liban ci Afrique jàpp suñu maam yi di rey jàpp suñu maam yi di rey di tëj di di yóbbu guerre. di yóbbu guerre di leen yettaloo ay tunnel. di leen yettaloo ay di leen yettaloo ay doj. di leen yettaloo ay doj. ku dee ñu jox rab yi ñu lekk. ku dee ñu jox rab yi ñu lekk. ku dee ci batam ñu sànni ci géej gi. ku dee ci batam ñu sànni lu bon loolu ñu def lu ko. lu bon loolu ñu def lu ko. tey nu wàññi ko. tey nu wàññi ko. ba yàlla soppi loola. ba yàlla soppi loola. delloo suñu. delloo suñu yoonu bopp sant nu yàlla xanaa wañu ko topp ci ñoom di góorgóorloo dégg tubaab ak ña a waxi tubaab xam nga duñu naw la mukk waaye li tubaab def ci Afrique ci lu bon bu fekkoon noonu lañu jëkkoon bu njëkk lebaloon lebaloon leen ko nit ki ñu doo taxaw Europe mukk kon bu ndee tiitaroo jàng tubaab tekkiwun dara doona ñàkk doona ñàkk te arab foo bind ci tubaab mën nga ko bind ci arab mën ko bind ci wolof mën ko bind ci pulaar mën ko bind ci soose nu fàttali loon suñu bopp rek googu cànk ne nit war xam boppam te bëgg boppam doomu aadama rek lañu nuy doomu aadama te ñoo ëppoon doole rek natun def nuy jaam lu ban lu bon lan ñu def lu ko tey nu wëcc ku topp ñoom di yëpp yëpp. tey nu wëcc xaw ma booy wax xaw ma nañ koy waxee ci wolof. booy wax ci wolof. te xam nga tubaab lu ñu la mukk. te xamul suñu bopp. te xamul suñu bopp. joxuñu yàlla njukkal. joxuñu yàlla njukkal. santuñu yàlla. santuñu yàlla santuñu sëñ Tuubaa. santuñu sëñ Tuubaa. te bu doon sëñ Tuubaa de. te bu doon fi jóg. béy ma ak lu jot. mel na Sëñ Tuubaa képp li dëgg képp tax. te dëgg ba yàlla far ko. ba yàlla fu mu doon. waaye mu doon lu def nañ ko def nañ ko. def nañ ko ko. ci lu bon. ci lu bon te lépp ngi fi. ñi jàng koy gis. ñi jàng koy gis. ñi yaa ngi fi. téere jëf yaa ngi fi. waaw fii ngeen di dem la ngeen fay yéem lépp seen maam yi lañ joñoon fi yóbbu ñuy gas tenel yi di yett xeer yi di leen tabaxal ay pale def leen di jaam fuñ dem benn bar benn benn benn benn kii nañ koy wuti barbar lañu wut boole ñu ñëpp góor ñi jigéen ñi ñi ngeen def xar yi rek ci gétt yi ñooñu daa def ni ñu ñuul ñi. te duñ boole ñu déggoo ay wax sax. dañuy jël ci mee réew jël jigéen ñi góor ñi ba ci boole ci benn angaar ñu seentu ni ni ni jur gi ñu wëñu ko di yónni ñu w ñu wàññi seen doom di yar di liggéeyloo bañ dee loolu ku a ko lebal fay lu tey teg nga topp di di di ciitóor ay waxam xam nga doole nag la mu tax santuñu yàlla xamul suñu bopp te yàlla te jaam yàlla nañ ñi moom te jaam yàlla nañ ñi moom te sëñ Tuubaa ci wan nañu yoon wa teg nañu ci ba niteel na ñëpp niteel na nit ñëpp ñu baax ñu demee ni moom kenn ku ne aw foofu loolu lépp ñu ne ko fi kupp tey di ñàkkal ñee jom xam nga amul jom amul fayda ñu dee xam boppam xam ne seen bopp te xam ne jaamu yàlla ngeen kenn moomu leen ko du yàlla kenn mosu leen ku dul yàlla. ku dul yàlla. fi nekkoon. ëpp fi nekk. li may faral di wax. nee na mooy li may faral ku dund ñaq jàmbur. ku dund ñaq jàmbur. añ ca naan man tëdd bi nelaw. naan dal. saxel tax xam nga ne. sëñ Tuubaa tax xam nga ko mos a ku ko mos a nga nax ko. ba fii toog tey jii. kon na lan may loolee moo ma taxam. kon lan may loolee moo ma taxam. nan dellu sëñ bi. nan dellu sëñ bi te dellu ci diini bi. te dellu ci diini bi te fonk suñu bopp. te fonk suñu bopp te liggéey. te liggéey te am jom. te am jom te bañ koo fooyee. te bañ koo fooyee. waxtu wu ndigalu sëñ Muntaxa jógee. nee na waxtu wu ndigalu sëñ Muntaxa jógee. jëm ci tool yi. ñun ñëpp fas yéene liggéey lu waay di liggéey nañ sa def sa jom ak sa itte te ko nag sa digg yàlla te bañ caa xool adduna yéen war yéen waxoon ne waam na jekk naa ko gën waaye jekk naa woom na yëpp de naa ko lu bari bari du dara. lu bari du la lay jural. ak coono ëllëg. te du ko jar. te jeex na ba noppi. adduna day gën di jeex. te day gën di jeex. kon jarul ñaaw. kon jarul ñaaw jarul nan seetaat suñu bopp. nan seetaat suñu bopp. nan seetaat suñu bopp. nan seetaat suñu ak diini. ci nite ak diini. ak day nite. ñu day am boppam bëgg boppam bëgg boppam xam farataam ya ko yàlla teg ko yàlla teg mu nangu ko ngir yàlla mu nangu ko ngir yàlla te di ko jëf ngir du warub jaamu yàlla du warub jaamu te du tooñ kenn maa rabbuka bi zaalimi lil abiid waaye nag du tooñ du far kuy tooñ waaye nee na du tooñ du farit kuy kenn ko kenn ko tooñ sa moromu jàmm. nee na ku kenn ku tooñ sa moromu jàmm. donte wenn fépp suuf la. donte wenn fépp suuf la. ci àq ju dox seen diggante. ci àq ju dox seen diggante. bu la ko baalul. bu la ko baalul. bu yawmal xiyaamee. bu yawmal xiyaamee. bala ngaa poussé da nga ko fay. bala ngaa poussé da nga ko fay. te bu keroog fay dana jafe. te bu keroog fay dana jafe.